Euh, rawatina fi réew toll waaye euh, comité bi nga xam vraiment ñoo collectif pour libérer libérer Taïb Socé sama xarit Fadel Gueye defe naa ràññee ngeen ko mu jiite ko ànd ak waa ñoom euh, Adama Mbop vraiment jiite ko ki nga xamné moko moo ci walu yëngatu ak euh, euh, téléthon bi muy Iran daw defe naa ne engagement am Sénégalais yépp sedd nañu ko euh, yalla jappalé len ci encore bugan ki Dany jappalé len ci encore parce que damay wax Iran nee naa ko soo def téléthon te te te te Bougane Gueye andu ci mais du soti mais dama gis né dafa joxé télévision joxé radio? joxe journalam qui me ci mais di génnee xaalisam encore di joxe parce que les fa ma nekk nekkal wa kër Khalifa Sall yi ñom bay Touré ñom yaaya dañuy vraiment mu def ne bu la ne na ci ndax du ko du parce que fi may liggéey dafa am télé am radio, am journal mais xoolut yooyu yëpp xoolu ko mais dafa jël yëpp emploi la ci biir des médias te man mun naa lay wax ne la benn yoon lañ ma fa mos a invité Pape Cheikh Diallo moom moo fa invité woon man ak Moussa Sy appartement 221 benn yoon keroog sax laa njëkk a nuyu wante ni joxanteeg Iran kii ki nga xam ne mooy buggaan loxo à part gisuma ne am nañ benn relation. kon loolu dama ko ciy gërëm dama ko ci sant dama ko ci ñaanal yàlla defe naa ne yàlla rek moo tax mu def ko dama koy bàyyi yàlla yàlla fay ko. waxna ko ko bima ma tribunal wonama nan ma no ya ko liggéey ma no ko dara sa baxay kessé ci nga ko défé parce que suko défo le nit ken du ko ko laaj mais mu sacrifié wu vraiment jël teleem ni mako ko radio journalam damay lire journal bi mu def ci page bu yaatu di publicité téléthon bi ma ngi tok ben pa bo xamni directeur société la ño nek chambre 42 mu ne ma ji nga page bi ñun homme d'affaires yi xam nañ ko page bi 3 millions lay don bu fekkee dafa am lo bëgg lo loo bëgg publicité muy lu rëy loo xam ne vraiment li ma mën a def rek mooy ñaanal ko yàlla fi mu bëgg a yegg ko fa ci ambition bon groupe bi mu yor encore groupe bi yàlla na ko yàlla jàppale defu ko ngir lenn yàlla rek moo tax mu def ko dama waxoon ne su ma génnee may wax fenn ci groupe am laa jëm loolu décidé mais moo ma libéré moo tax ma leen di libéré xamal ne amul problème demal nga jël gaañ yi nga wax leen amul soo paree heure boo bëggee rek ñu invité la moo ma libéré mais su ma libéré wutoon defe naa ni vraiment dina bàyyi ba foofu ma remercier ko remercier àdduna bi yëpp kon ngeen bàyyi ngeen xam ne jël bii ngeen jël ma moo ma libéré parce que man sama kàddu rek laa am ku la defal lu baax nga sant ko ku la defal lu baax nga gërëm ko ñaareel bi maa ngi gërëm itam euh, groupe bi nga xam ne foofu lay liggéey mooy groupe Futurs Médias xam naa fi ñu ma teg xam naa ko xëy nit ñi ñoo xamul mais man xam naa ñoom Alaja Sène Guèye Birane Birane Ndour Youssou Ndour ci commencement bi avant téléthon di dara am la yónnee fi sama kër joxe fi xaru tabaski sama njaboot ñew nañ wax mako ne mo Youssou Ndour yónnee na fa secrétaire ñu indi xaru tabaski booba téléthon amagul ñu def téléthon ñom alaja seen géey ñoom ñëpp groupe bi yep cotisé nañ lu ñu man ñu def ko Birane joxe na 5 millions Abacho, Abacho Abba télé bee ko mom. télé Futurs Médias ñoo ko bu ñu tëggee ñom lañ koy verser. mais dañu teug Abacho bi yep ñu verser ko ci téléthon bi loolu itam xam nga lu rëy la bu leen neexoon nit mën mën nañu ko bañ a def ah, parce que xëy na lii xew ci man xeweewut ca fa may liggéey dafa xew ci feneen su leen neexoon ñu ne xeewut ci groupe bi du ci liggéey bi ñu bañ ci dugal seen loxo waaye dugal nañ ci seen loxo ñoom itam ànd ak ñëpp vraiment Alaaji seen Guèye njoogu jéen la ñu yónni rëbës mu ñëw seet si ma keroog ci bureau directeur bi la ñu la ma recevoir boo xamal ma ne ma gars yi yëpp vraiment kenn ko ma ne ko effectivement lu yàlla dogal ci nit kenn mënu ci dara mënoon faatu <laughs> ndi kon kenn du mais bu yàlla defee lii nga ne vraiment li tax awma ci benn awma ci problème mooy Sénégal dañ koo jël en charge ñëpp a ko jël amee muy diaspora bi muy jigéen muy góor bi yëpp ñoo ko ne dinañ libéré mais ces jours ñu dajale ci cent cent millions ne man ñi ci ne Fadel wax argent de poche am sama 2000 yi desoon jox ma ko ko ak xale yu ndaw ñoo xam dañ leen mayoon 10 francs ñu ne dañ ko yóbbu jox ko Oustaz Taïb kon nga xam ne loolu yëpp euh, yàlla la yàlla subhanahu wa taala moo ma nattu woon waaye moo ci contrainte par corps 200 ferme la man defuma fa mois matul deux mois mois euh, parce que chaque jour maa ngi gis ne ñoom faadel nelawuñ guddeeg bëccëg ñu ngi ci te affaire kon loolu li ñuy def mooy sant yàlla di julli ci yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu koy waxee di gërëm encore sunuy wayjur sama yaay daf may wax ne ma yàlla bu leen kenn yërëm loolu la may wax yàlla bu leen kenn yërëm dina ma wax itam ne ma bu la ñëpp bëggee du ma am du ma kontaan ci yow kon il faut nga am ay ay ay ay tolof tolof mais moom xam na ma xam na ma ko jur sa doom mu màgg xam nga ban façon nit la moo tax yii bu amee moom du ci am benn tiitaange ndax it dina ñaan yàlla waaye dina xam ne moom ni mu koy waxee su fekkee liggéey naa dara sa kër papa di lii du continuer su fekkee liggéeyuma fa dara nag vraiment kooku xaw ma fu ma jëm loolu may wax toujours su ko defee ñu ci am mbégte di am di sant yàlla ndax itam xam nga tuuma ni ñu koy waxee li lay condamné mooy sa conscience man dama koy wax gars yi toujours ba ma nekkee rëbës damay waxtaan a gaañ ñi di am problème bi ñëw di ma laaj ma ne leen man daal aw ma benn problème ndax sama conscience man libéré na ma ndax xam nga Adja nit ku ñu xam la tey société dañ koo xam. ñu xam ci média yàgg na de média bi ñi ma xam itam li ma li ma li ma li ma li ma li ma li ma li nga xam ne ci lañ ma xam mooy alquran ku ma xam ci alquran nga ma xamee te li ñu ma tuumaal xanaa dafa dëppoo lool ak alquran bi may jàngale te bëgguma doon nit koo xam ne encore li may wax dama koy wax rek en tant que naa ko wax rek mais gëmuma ko parce que man bëgg naa doon un musulman bëgg naa doon musulman te gëm naa ne yàlla dina ma jël mu àtte ma benen jugement bu bokul ak ay jugement yi ni dina ma até te até bi yàlla ba yàlla amul mu condamné la ñuy def téléthon amul yàlla amul ñu condamné la ñuy def appel ben appel la laa muaqiba li hukmihi la wax sama até amul appel te gëm na ne aduna bi day jeex ñun ñëpp dañuy faatu dañuy dem kon amna yo xamné xam ne mënuma ci dara ma ngi koy wax ki moom mos ma ne yonent yàlla Yusuf dañu ko jiiñ viol viol en tant que prophète bu taxaw di woni niñ yàlla ngay violé doomu buur maanaam ngay violé soxna su buur mais tuuma la mënu ci dara tuuma boobu dem nañ ba xam ne ndaw si waxul dëgg mais terewul tëdd na sept ans ferme sept ans ferme kon loolu yàlla la neexoon mu dal di euh, euh, jaarale foofu Youssouf ba mu génne yàlla defal na ko xewal yu bari parce que ña ko condamné woon dem na ba mu jig ku lekk moo la jox nga lekk ku naan moo la jox nga naan parce que économique bi yëpp moo doon ministre de économique ak finance après la prison kon nga xam ne loolu yàlla noonu loolu la namoon defal ko ko waaye ma itam dal damay sant yàlla ndax yàgg naa bii mooy sama troisième fois benn dossier nga bokk kook ay nit man Taib Socé maa ko maa ko dund ca commencement ba ba ci fin bi man man maa fay maa fay xaalis il faut mënuñ ko wax xaalis boo xam ne bu ma leexee ma ne jaarul sax ci sama loxo mais sant naa yàlla subhanahu wa taala yàlla la na moon doon na gën a métti aja ñu ne Taib dañ ko contrainte par corps mu ngi ci prison bi deux ans te kenn yëngatuwul buuba la doon métti mais man dama dugg matul deux jours Fadel Guèye mu nga ne ak Moussa Mboup ñu ñëw ñu wan ma ne ma dañ lay génne ci kaso gi naguma ko woon parce que dama wax ne xaalis su ma lekkul duma ko fay mais am na foo xam ne mënu ma ci dara ñoom ñoo ne ma taxawal mënoo ci dara dañ koy fay ñu jokkoo kook ñu war a jokkoo ñu def ko yàlla jàpp ci mu réussir kon bu ma neexee ma ne la man dama sant yàlla subhanahu wa taala nekkoon naa ak ay nit ci biir ñun ñëpp ku nekk ñu bokk benn chambre rus bi mooy man sama sama sama mbir ñu ngi koy lijjanti mu ngi dox maak ñoom ñëpp ñooy ànd di ko seetaan te ñoom seen mbir xamuñ sax fan lañ jëm amuñ kenn ku dox ci biti pour lijjanti seen dossier man chaque jour rajo journal télévision tayib soose nit yaa ngi dox dama mujj ba am kersa sama digganteeg ñoom ndax nit la ñoom nit lañ kon pourquoi yàlla teral ma man ma dugg fii ñëpp ci biti ñëpp taxaw pour jéem a libérer tayib soose te samay nawle amuñu ko moo tax dama mujjoon am kersa mais ma sante ko yàlla subhanahu wa taala sant yàlla mi nga xam xam nga bu ñu alhamdulilahi rabbil alamin pourquoi alhamdulilahi cant yàlla kese kese kese kese la lu tax ñu ciy yokk rabbil alamin yàlla du yëkkati 5000 jox Taib Socé day jox Fadel Gueye 5000 Fadel Gueye jox ko Taib Socé moo tax bu ñu alham ñu ngi sant yàlla moom mi tàggat mbindeef yi ba lépp lu la yàlla di jox ci ay mbindeef la koy jaarale moo waral alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla rek wax dëgg yàlla xëy na. maanaam li ma mën a def rek mooy gërëm ñëpp sant ñëpp waa ji dama koy wax ma ne ko man damay gërëm ñëpp di sant ñëpp moo xam ci bitum réew ñu may woo biir Sénégal adduna bi yëpp li ma man a def rek mooy gërëm leen xaw ma woon ne jaral naa nit ñi lii xaw ma ko woon xëy na yàlla am na lu ma bëggoon wan moo tax mu def lii ndax bu lii amuloon man dama yaakaar ne Sénégal la comme Sénégal yëpp ah nit ñi maa ngi ñoo ma mais xam naa ne Sénégalais yi am na fu ñu ma teg xam naa ko xamna naa itam ne li def amna fuñu ko tek parce que am na ñoo xamni ñu ngi joxe mosuñu gis Taib sosé xeyna dañuy dégg rek ci radio yi kon lolu la xam lima mënon ma bu ma doon def bu ma doon daw ñaari pa dina ci yokku 10 pas kat ci kàttanul yàlla parce que vraiment dafa melni yalla sama diggante ak nit ñi yalla nanguna limay def sama diggante ak nit ñi yalla nanguna limay def xeyna sax sama diggante mo nanguwu mais wan na ma ne li ngay def yaag nit ñi nanguna ko man yalla parce que xaliss dafa sax ci xol xale xaalis ku koy joxe am nga ci soxla mais nit ñi di daw guddeeg bëccëg maa ngi koy seetaan maa ngi ci teg sama bët lu ci xew rek maa ngi koy seetaan kon loolu vraiment li may def daal mooy sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xam ne man amatuma benn problème lu may métti amatuma ko parce que man gëm naa ne bu fekkoon ne yàlla su bëggee fàtt Tayib Socé day laaj xaalis man du ma dee kon du ma dee Sénégal yi dina jënd sama bakkan loolu xam naa ko parce que lii wane na ko bu yàlla noonu damay laaj 100 millions pour Tayib Socé bañ a dee man du ma dee xam naa ko téléthon bi gaa gaañee koy téléthon ñoom Fadel gii léegi Taïb Socé Doulou parce que lii wane na ko kon li may def rek sant yàlla julli ci yonent bi gaa yi nee nañ lii c'est la première fois mu man de mosuma koy gis bu ma juddoo ba léegi maa ngi Sénégal mais mosuma gis lu mel nii ah di ci gën a sant yàlla di gën a gërëm mbokk yi vraiment seen taxawaay wolof Ndiaye day wax ne nit nitay garabam loolu bala nga koy xam rek nga am problème man xam naa ko ndax ma duggoon kaso ne ci biir sama njaboot jaaxle. ñëpp jappé ne comme ça, c'est comme ñeneen ñi rek sama dossier ñu fofu 200 dina ci parce que man jullit la té luma ma ték dama koy nagu bi may suis dinañ def de xaw ko de mais dama gis ne comme que situation bi li la def yalla moy juge mag bi su ne liñ may tuumal mako def na fi 200 mais su ne lèr né ko mais sama loxo jaaru ci ak nu rek ko parce que juge beeg nangam da am na jugement bu mag boo xam ne mu ngi ñëw su fekkee li may wax dama ko doon wax wala dama doon nax Sénégalais yi yàlla da koy atte parce que fii àdduna la day jeex ñun ñëpp bu doon ay milliards day jeex kon rawatina ak loo xam ne xëy na tuuma la maa ngi sant yàlla aja di sant sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais di sant sénégalais yi amul góor amul jigéen di sant sama waa kër samay soxna samay doom parce que ñoom xam nañ Euh, kenn xamul mais ñoom xam nañ ajaa est-ce xam nga ne man su ma su ma su ma su ma jógee Dakar yor cinquante mille francs su ma duggee rek sama waa kër xam ne papa am na xaalis tey damay jënd ay mbuus vingt mille yëpp naa ko jënd kon man xaalis bu mu am sama njaboot xam nañ ko kon ñoom teel nañuy libéré wu li ma leen di wax rek mooy da ko dund ci ngor dund ko ci bu leen tontu ci mbedd yi bu leen wax dara génn leen liggéeyi te ñëw te yàlla dina àtte loolu ñoom yar naa leen ci ñoom itam xam nañ ko vraiment euh, soxna yi sonn nañ lool du man sax maa sonn mais nit ñi ñooy sonn aja parce que dem uti këyit ñëw rëbës naaj wu tàng wi ah vraiment dama leen doon yërëm man sonn ma fi ma toog laa toog ñëw ne am na visite ma ñëw xool génn ñëw su ma fa jógee maa sama ñu ngi ataaya ñu ngi jàng alquran maa ngi tojal gars yi ay soxla façon bu nekk ñu ngi koy def foofu ba mujjoon sax dafa mujj neex dañu mujj intégré mu neex lool su ko defee loolu yëpp nga xam ne yàlla la euh, subhanahu wa taala bari na koo yërëm yaakaar ne sonn na noo fekk ñun sonn ñu woonaa ah. vraiment mujjoon nañ ba suñu néeg bi cours sax doo ko bëgg a génn waaw ñooñu muy Alioune Sall ak oustaz Alioune Alioune Sall li ma leen di wax rek mooy dama leen di bàyyi ak yàlla ndax ñoom itam vraiment euh, seen taxawaay rafet na trop seen seen taxawaay xëy na man mënu ko wax aw ma baat yu ma leen gërëmee aw ma ko lu may rek xanaa jërë ngeen jox maa leen di bàyyi yàlla te loolu su ma amoon lu ko ëpp ma def ko defe naa ne mun naa ko wax waaye li nit ñi gis ah li nit ñi jàkkaarloog seen defe naa moo gën a moo gën a leer li nga xam ne moom la tey di wax seen taxawaay ñëpp xam nañ ko Alioune Sall sama xarit la yàgg na euh, booba rajo Dunia moo ubbi yes kenn xamagoo ko sax ci rajo dama doon fanaan ak moom ba set sama soxna si xam na ci dara maa ngi dëkkoon HLM 4 su ma wàccee soxna si moo ñuy defaral ndékki ma ak moom ma jaar ci foor bi jënd mburu joxaale ko yónnee ko après yebal ko mu dem sama digganteeg moom du tey yàgg na yàgg na yàgg na euh, Iran daw itam vraiment aw ma yenn baat laa koy gërëmee moom itam parce que engagement Iran ñëpp jël nañ ko di seede ma ne mais Iran kii mo ngi jël responsabilité kan moko wax ne ko lii ñuy wax tay Sose Taïb Sose def ko mais xolal ni mi xaccio ak ni mi cédé nga xamné koku jël na responsabilité yu reuy am na ci yéné mo taxit yalla jappalé jàppale na ko ci affaire bobu mu réussir wax de yalla du nelaw goudi du nelaw bëccëg xalé yi lum goudi goudi guddi tiwaawoon du fanaan fi de du fanaan Dakar lum goudi goudi mu yebal xalé yi ñu ñëw tiwaawoon té 4 h du matin sax maa ngi ko gis mu ngi yaw di compte xaliss bi yeb gis naa ko kon koku luma koy fayé lu mooy gërëm ko ñaanal leen yàlla parce que daal vraiment am naa mbégte su ko su ko ñeneen defoon du ma kontaan su ko politiciens yi defoon du ma kontaan mais samay collègues oustaz ñoo taxaw samay xarit yoo xam ne nit ñi xam nañ ma bu yàgg man ak ñoom ñoo taxaw def ko mu réussir damay seetaan Iran mu ne boo ko politiciens yi defoon du du kontaan su ko keneen mayu ma ne ko mayitam su ko kilifa defoon du ma kontaan mais sénégalais lambda sénégalais bi am 100 francs sénégalais bi am 300 francs sama waa kër a ngi nii soxna si dañ daan jot wari 300. 200 kenn ko ne kon nga xam ne même ñi joxe ki joxe 200 ak ki joxe maanaam 20 millions ñoom la yemale parce que ku nekk am amam ak yéeneem ak ñi nga xam ne joxe wuñ mais ñu ngi taxaw di ñaan kon loolu yëpp dama leen di boole vraiment di leen gërëm di leen sant di am mbégte vraiment Adja di ñaan yàlla di julli ci yonent bi gis na yàlla mooy àtte kat bu mag bi lépp nag bàyyi nañ ko ci loxol suñu borom ndax doomu adama mënul munta leer fii du fi leeree bés dinañ ñëw yàlla àtte yow ma tubla sarair bés naa na bés dana ñëw li ñuy neub yeb dinaa ko feñal lolu amna ci ak di awa di wax ne wa raddalaahu lazina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra parce que li amna lo xamne day neex ki amna lo xamne du neex kale kon ñim neexuloon mo ñom la wax ne wa raddalaahu lazina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa lahu almuminina alqitala wa kana lahu qawiyan aziza dama ko doon wax toujours fu mu monta toll lolu nak vraiment su ko ndinon ci am am am am ci am ci am ci am ci résultat di gërëm jaxate Daawuda jaxate sama xarit la lu mu métti métti sama oto moo ko yor mooy indi añ mooy indi reer soxna si mu dem moo ko yóbbu te bu ko neexoon ndeysaan mu xaw a diis ci moom mais daf koy def ak xol bu sedd def ko ak yéene parce que man sama kër ay xale yu jigéen a fi nekk amul góor xale yu jigéen ak góor mais moom ñëw na nekk xale bu góor ci biir kër gi lu ma soxla ci àdduna mooy taal oto bi dem def ko kooku itam mënu ma ko gërëm mënu ma ko mënu ma ko ñàkk gërëm eh, maa ngi koy gërëm vraiment di ko sant yéen itam ñu ngi leen di gërëm di leen sant Euh, muy waa euh, Anne Marie mu may woo barki dem rek ndeysaan ne ma fii ñun ñëpp ket nañu ñun ñëpp cotisé nañu ket nañu heureusement fekk nañ affaire bi mat na mais dinañ ko dajale ñu jox la ko ñu mooy samay collègues yi may liggéey groupe TFM kon ñoom gis nga ñu seen téléton bi day continuer barki dem la moo di ma ko wax kon loolu li ma séq ak ñooñu xam naa li mu doon xam naa leen ñoom it xëy na xam nañ Taib Socé yenn comportement la nekk ak ñoom rajo RFM encore El Hadj Assane directeur ñoom Daoudou Diouf ñoom ñëpp vraiment ñoo bokk ndey ak bàyyi affaire bi metti na leen ndax bima ma gendarmerie ci commencement ba boobu demaguma rebeus El Hadj Assane Gueye fa la ma fekk ci bureau bureau bureau euh, euh manam recherche bu bu bu bu Colobane moom Daouda Diouf Fadel Gueye ñoom Moussa Mboub yi nga fofu lañ décidé téléthon bi ñom boobu demaguma rebeus ci bureau commandant bi lañ ne ma mënoo ci dara dinañ ko def mayit mom moom sama bopp dama yor njaboot yor ay xarit ma bàyyi leen ñu def ko yalla def jox leen ñu réussir. boo ko wax mu ne lii c'est la première Sénégal ak it ni mu gaawee fukki fan ak juróom-benn lépp mat ba nit ñi di indi ñu ne leen doy maanaam léegi nit ñi di indi ñu ne leen doy na ah loolu ajaar loolu ku mu ku ci santul yàlla julli ci yonent bi mais doon nit gërëm ñi la ko defal aw ma baat bu ma leen gërëmee dama leen di wax rek yal na leen yàlla fay yal leen yàlla taxawu te yàlla yem fi damay ñaan ne yéen de li ngeen ma lebal yàlla bu ma leen ko fay man dal loolu la xam nga bu kum ci xewoon it may daw bëgguma ko bu ñoom leen dal ñoom na yem ci man kese ñu réussir ko mu bañ dal ci keneen vraiment ajal loolu la ñu ngi leen di gërëm ñu leen di sant asalaamaaleykum wa rahmatullah